Serigne Touba yaa jara woy Serigne Touba yow yaa jara woy Serigne Touba yow yaa jara woy yaa ay Serigne Touba Serigne Cheikh Ibra Fall Serigne Cheikh Ibra Fall def leen nii ñu màggal Cheikh selaw bu ba cëg bañ nelaw baraw ña daa wayal calaw ngir li mu def ci xarnu bi waaye mbakke yaa nu mat boroom fi ko ci àddina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom tiinul nu tooñi xarnu bi tiinul nu tooñi xarnu bi nun soobu nan la jàlle ñu ay nun soobu nan la jàlle ñu nun soobu nan la jàlle ñu nun soobu nan la jàlle ñu nun soobu nan la jàlle ñu ñun soobu nan la jàlle ñu waaye Mbàkke bul dem bàyyi nu yow mal xiyam yóbbaale noo ta a yóbbu mboolem xarnu bi